Amis auditeurs, merci. Merci de rester fidèles de la Radio du Bonheur, la 97.5. L'émission Rémi People s'installe comme tous les samedis. Nous sommes le, le 6 juin alors euh, cette émission que je vais présenter cette semaine Sandji Ly sama binôme bi waaye xam naa du ñàkk amaana sax mu fekk ñu ci li nga xamante ne mooy dëgg émission bi de toute façon on lui fait un gros coucou on te dit que tu nous manques reviennons vite donc Sandji euh, Ly tey nag ñu am mbégte dalal benn ndaanaan boo xamante ni mu ngi ci scène musicale sénégalaise bi elle s'appelle Queen Dollar elle est rappeuse artiste rappeuse dañ koy jox le privilège de mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo koy teewlu ci la rajo du bonheur Queen salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àddina euh, man la Queen Dallas artiste rappeuse chanteuse interprète sénégalaise. Mm-hmm. d'habitude tu es comme ça calme sereine. waaw dama calme wala da ngay ma gësam <laughs> naturellement <laughs> naturellement man je suis waaye nag elle est pas seule elle en compagnie elle accompagnée de son manager Aziz moom tam mu nar a bokk ci waxtaan wi Aziz asalaamaaleykum yow tamit noo def. salaamaaleykum maaleykum salaam mi mi ñu ngi lay fay nuyoo di nuyoo say euh, auditeurs yi actuellement yi nekk di déglu réew mi FM mm-hmm. euh, ci émission bi nga xamante ni moo di réew mi people di leen jaajëfal ci teewlu bi nga ñuy teewlu actuellement Euh, je me présente, euh, Aziz Yangziz, le nom d'artiste, en même temps euh, artiste, euh, rappeur, euh, aussi le manager de Queen Dallas. Mm -hmm. Merci beaucoup. D'accord. Queen Dallas from euh, Yara, c'est bien cela. Alors, tey jii bu fekkonte ne dama la wax nga dugg ci sa biographie maanaam te présenter pour ñi nga xamante ne ñoo ngi lay soog a dégg lan nga ñuy wax. waaw parce que Queen Dollars dafa mel ni sax manager bi moo ci gën a mais mun naa si cof tuuti rek. Euh, parce que man sama début de carrière fin 2017 la. fin 2017 2020 4 ans bu matul noonu. Mm-hmm. def naa fi 3 euh, singles def naa fi SDF. Uh, fin 2010 euh, nu mu SDF comme sans domicile mm-hmm. at No Love featuring ak Dream Energy Dangerous Girl fin 2019 mm-hmm. ak compilation ak sama benn nu mu tudd waa yaraax ci black ak artistes yu mag yu nekk foofu ak yang zis mi mhm. euh, fa Abdoulaye Timéra mhm. boobu noonu RIP Abdoulaye Timéra mhm. ba tey ñu egsi fii ñu egsi fii d'accord si je comprends bien ton manager aussi est rappeur waaw dafay rap rappeur la foofa toj foofa toj <laughs> <laughs> d'accord d'habitude tu parles comme ça tu sa accent bi euh, on sent on sent un peu que Et euh, tu euh, tu tu aimes euh, di ci dugal ay anglais euh, voilà c'est ton fort wala da ngay tu les les États-Unis nu mu demee noonu. waay Samba bi moom c'est naturel. Mhm. accent bi nii laay waxee peut-être dotom bi moom ma jàpp. bu ma dotomee dañuy foog ne da koy camoufler. waaw damay camoufler dotom bi dañuy foog ne damay rouler ay air wala damay. laal tuuti Amérique bi mais demeewul noonu. Mhm. naturellement nii laay waxee. tempo tempo bi. wala euh, aspect rappeuse bi la. waaw peut-être bi la parce que des fois sama biir famille démb rek maa ngi wax. tak tak tak di bar mel ni kuy rab. Mhm. sama sœur bi naan yow la ngay wax kay xamul li ngay wax ngay mel ni kuy wax ak rappeur. Mhm. tellement rythme bee lay jàpp. d'accord léegi en gis de civilité maanaam nuyoo SDF bëgg nañ ko nga interpréter ñu ko. SDF <laughs> sans domicile fixe. Mhm. léegi loo ci bëgg. waaw nga def ko un petit acapella rek comme ça on aura une petite idée. de Bado. voilà de de ton originalité. <laughs> waay xaaral ma waaw laata laata kon ngay ñëw xaaral kon ma dem ci Aziz le temps de le temps que ngay defaraat baat bi peut-être alors Ziz rappeur di coach rappeuse coach xaw ma accompagner est-ce que c'est facile. bon mun naa ne c'est pas facile quoi. parce que mm-hmm. boo buggee boole yow euh, sa sa sa carrière personnellement ak nga war a ménager en même temps euh, carrière beneen artiste. on peut dire que ni du yomb mais alhamdulilah ba ma ba ma ba ma àndalee ku mel ni ak Queen Dolly mhm. elle est déjà d'abord une sœur pour moi xam nga ba pare mu doon artiste boo xamante ni euh, gëm na gëm na lu muy def bëgg na lu muy def mhm. xam nga am na ci fulla am na ci faayda kon yaakaar naa ni euh, ça ne sera pas problème pour ñu gunge ko quoi ci yoonam bu mu jël ba pare du ma yàqal aussi dara déjà man euh, génnee gu ma officiellement sama premier single. Mhm. déjà démb laay soog euh, publier ni que euh, le 12 juin lay génne sama premier single. et ça LCS. La cloche sonne maanaam ah. il est temps quoi. c'est original ça. ouais il est temps ko ma sama idée la ak. sama manager ça vient LCS euh, fu mu jógee mooy genre la cloche ça veut dire euh, il est temps il est l'heure dafa jot. Mm-hmm. parce que lan dafa jot mooy euh, xam ñi ma xam xam nañ ni que depuis bas âge. Mm-hmm. hip hop lañ mës a foowee hip hop lañ mës a bëgg. jaar naa ci benn groupe bu tudd Def Off. groupe groupe bi mu ngi composé woon ay rapport yu dëkkoon Yaraax ku ci mel ni Faye Men xam nañ ko Tizro. Euh, Taylor ay euh, Vito X Killer xam nga ñu nekkoon ci benn koñ comme comme comme d'habitude li ñuy gis ci quartier yi quoi euh, groupe d'arab yi nekk am ci quartier yi après ma bàyyi mu sedd xam nga ma dem ba amatuma benn amour ci musique bi genre ma arrêté am ci yeneen yu ma nekkoon. pourquoi parce que ça ne marchait pas comme tu voulais. non wax ni doxul woon parce que déjà tegaguñu woon benn jéego. Mhm. loo tegagul benn jéego noo xam ndax day dox ou pas. sauf que ni que. peut-être amul bi moo manqué woon wala melul woon comme nu ma mel présentement. Mhm. loolu moo taxoon ma tegoon sama tànk yeneen gars yi après ku ci nekk dem nga def leneen kii def na carrière solo genre Fireman def na carrière solo ci Tizro mi ak carrière solo ak euh, x x euh, kila genre yu mel noonu quoi. Mhm. après quelque temps après ma ma ma ma pose woon léegi euh, bañ ba may gunge kii Queen Dallas moo koy gunge. après ay retour laay am non yéen ñaar damay gis seen duo dafa nice mais Ziz ñëwaatal moom en personne moom da doon jooy pour man ma dem studio. daf ma doon saraxu pour man ma def benn affaire après loolu moo ma inspiré ma ne neexu ba neex mais il est temps. la cloche sonne quoi jot na a moo loolu moo ma inspiré ci titre sama premier single. d'accord alors nga mel ni euh, mën nañu wax ni que tu es entre guillemets ange gardien wu Queen. parce que tu l'accompagnes et tout mais est-ce en vous regardant, on sent que vous êtes jeune. Est-ce que Aziz a cette maturité donc euh, pour être son manager parce que manager tout à l'heure sànq bi ñu ñëw maa ngi la koy wax metti na et puis bëri na dugg dugg euh, tey jii est-ce que tu sens que tu, voilà est-ce que tu es assez mature pour euh, occuper poste boobu avec tout ce qu'il faut. je dis pas oui. mais je dis pas non à la fois parce que boo xoolee management. doonul lu yomb. nit pour nga manager sa bopp rek yombul waxtuma la nga war a manager beneen artiste. mais comme ni la ko waxee sànq ci njëlbeen quoi maanaam kii naaw mooy neex a sànni. comprendre fi may waxee. kii kii naaw mooy neex a sànni maanaam kiwin euh, déjà dafa dafa dafa gëm. Euh, li muy def bëgg lu muy def am ci fulla am ci fayda kon kooku day neex a jàppale maanaam bari ko ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem xëy na management bi bi bi ma ci sol euh, par rapport ak carrière daanaka loolu day nekk sax ci man rek. Mm-hmm. parce que euh, pour dire vrai moom moom mooy manager boppam. Mm-hmm. pour dire vrai moom mooy manager boppam xëy na man euh, yàlla moo ñu boole te commencé wul ci musique maa moom lu ñuy liyee du du ci musique loolu jiitu na suñu judd. Mm-hmm. suñu famille déjà ay ñoo bokk dëkk xam nga ñuy fréquenté depuis temps booy ñooy àndandoo lépp ñoo mën naa ne moom ma maa yar. kon su duggee ci benn mbir ndax parce que da koy da euh, da koy wax tout le temps ci ci yenn invitation ñu koy def su duggee ci benn mbir ndax man kon su ma ko tegul loxo wala su ma ko jegewul kon gaa yi nañ ma xoolaat quoi nañ ma siis waa mi nu mu demee nii. est-ce que c'est une relation boo xamante ni c'est typiquement frère et sœur ou bien. oui je peux dire. oui. amul lu nëbbu ci suuf. non non amul lu ci nëbbu di ruube de. non non amul ruube amul ruube. dëggantaan. gars yi ñuy déglu. kii kii sama sœur la. yeah for real. eh yow wuy ma kii il te vole la vedette. noppi nga ah. noppi nga pour defal ñu un petit a cappella. d'accord SDF. ok. I'm a singer up a country. I know the criminal wabi. I'm a big boss, trim D. Hollywood grubbers and current G. My fucking name is current dollars. Bitch, you pay me my fucking dots. What's up, young Dizzy? I don't care what people say. I don't give a damn what people say. Cause I'm a bigger people say. The last time it's a fucking money, bitch. I'm an American's current bitch. You love me, not crazy, bitch. You know me, that fire, bitch. Over the, over the shit. Smoking your motherfucking shit. Yeah, kukush. Kukush. Life begins, yo. Over over the shit. Smoking your motherfucking shit. Jam. Cookish. Cookish. Life begins, yo. It's the last beat on back. So when you my jacket, Zara, do not talk about me. When you up my Balenciaga, do not forget the homie. You keep my back, Prada. I watch the movie, yo. Bitch, you're good, you got ambition, you have nothing. Where is your motherfucking blessing? Ah! You fucking trick at me, my daughter. Acha, well, quelle est l'idée générale? Quel est le mi ngi wax ci sama euh, mag yi sama grande sœur yi sama rakk yu ndaw yi yoo xam ne amuñu fu ñu dëkk. Mhm. ay ay ay ay SDF lañ. dafa bëri yaraax ci dëkk. no yaraax bu doon yaraax sax SDF xam nga da ngay SDF nga foog ne ñu amul. rek ñoo ko mën da nga gis sax ñu yor nekk SDF di tey ñu tëb dem dëkk bi dem dëkk bee fanaan kër gi tey ma ak fanaan kër Aziz suba fanaan kër Mike gannaaw suba fanaan kër keneen ak keneen mhm. yëfu salte yooyu daay man daf may metti mhm. te man lii man yàlla dogal na bu may bind texte rek du ma inventé damay gis si nit ma bind mhm. mu jege ma loolu d'habitude tes textes c'est toi qui les écris may bind yëpp ta source d'inspiration c'est quoi principalement waaw man ni may bindee des fois sax damay taxaw sama bëntu nekk ci tali bi. Mm-hmm. inspiré wu sama biir nekk rek bu ma toogee dama inspiré wu te texte bu ma bind yàlla may na ma chance boobu ci nit la jóge mm-hmm. damay toog gis nit mu def lii mu rafet wala mu ñaaw comme genre gis naa benn xeex sunu koñ côté koñ boobu noonu euh, ma bind ci toog ci bëttu kër gi. Mm-hmm. toog di bind. di inspiré wu loolu sax génnagul mais après xam naa surprise yi dina gën a ñëw. d'habitude tu écris en anglais. anglais damay bind anglais noonu laa doon commencé. dama doon bind anglais. jàng naa anglais mais damay jàngat en même temps. mais du lépp ngay mën nag parce que tey mën nga am moo boo xam ne doo ko xam mais duñ la wax di nga ko comprendre. Mhm. voilà moo tax boo bindee olof boo bindee anglais après da ngay kiiwaat. Mhm. delluwaat ci olof pour ñu déggul anglais di comprendre li ngay wax. Mhm. voilà d' accord pourquoi yéen dictionnaire anglais bi argotique rek ngeen ci jël parce que souvent dans les chansons on entend bitch itch des mots qui sont un du ay saaga. du ay saaga bëcc. fa explique non bëcc gi loolu ñëpp xam nañ ko xale gi ci gën a ndaw yi sax dañ la koy waxee. Mhm. loolu dafa bokk si rap. man personnellement je prends ça pour une insulte. j'ai tort. ah tu mën naa wax côté bi tu as tort côté bi tu dafa mhm. bokk si rap. d'accord mais comme déjà dañuy dañuy fësalee di saaga ndey. Mhm. booboo gën a ñaaw. bëcc nga wax genre waxal wala jógeel fay yoo xam ne daal. du du mais bëcc ci rab la bokk. Aziz Aziz tu, tu peux nous l'expliquer comment parce que des fois seen langage bi c'est un peu entre guillemets vulgaire. non loolu moom mënul ñàkk quoi parce que boo delloo ci base bu rap. Mm-hmm. hip hop rap fu mu jugee quoi parce que boo nee hip hop dafa yaatu quoi. Mm-hmm. mi ngi ci graffiti mi ngi ci DJing euh, beat making loolu yëpp mi ngi ci biir hip hop mais rap euh, particulièrement boo xoolee fu mu jógee histoire u rap ba fu mu toll nii boo ko comprendre di nga xam ni carrément ay langage yu rap war a mën a neex nekkul fépp nga ko war a mën a waxee nekkul ñëpp ñoo ko mën a dégg. Mhm. parce que fi mu jógee la. Mhm. comprendre nga euh, de ce fait que mu mu mu nekk benn benn benn benn culture urbaine loo xamante ni ci mbedd bi la nekkee. Mhm. yow doo toog sa biir kër di dégg yenn mooy wala di gis yenn affaires yi. xam nga doo toog sa bureau wala sa bërëb liggéeykaay di dégg yenn mooy ci mbedd nga koy déggee. te rap ci mbedd la jógee kon c'est normal ñuy dégg genre yu mel ne yi ñu naan dafa vulgaire. Mhm. c'est normal quoi mais euh, du ñëpp tamit ñooy dégg euh, li rappeur bi di wax. comme genre moo yooyu nga wax ay bitch ay fuck ay wala truc du genre du ñëpp ñoo koy dégg xam ne kii mi ngi saaga. Mhm. tant que waxoo olof bi ñëpp xam. te déjà sax parfois nga dégg ko ci ci ci ci ay ci ay son de rap. parfois nga dégg ko si. Mm-hmm. mais kii li mu fi wax nii nit mën na dégg lenn kese euh, ngay boo jàppee li mu wax yëpp danaa non kii anglais rek lay laax quoi. Mm-hmm. xam nga euh, pour man amul leneen ñu ko mën a expliquer nu dul noonu. Mm-hmm. alors euh, Queen en l'entendant chanter ou bien rapper on sent que a du potentiel. toi tu es avec elle. ban beneen qualité nga gis ci moom boo xamante ni yow xam nga ni cette fille là art bi muy def dina ci dem. Euh, d'abord dafa njëkkee commencé ci fecc. ah bon. ah dafa njëkkee euh, maanaam. comme quel genre de danse dance hall wala. dance hall euh, break dance. Mm comme man mi xam sànq maa lay juñ ni que moom su su gisee su gisee ma nekk si benn mbir. moom mu bëgg ko ba tax moom mu dugg ci mbir boobu noonu. dafa jiitu euh, rab bi maanaam break dance. lañ la njëkkee commencé. Mhm. xam nga mu fekk ci lool mhm. mu nekkoon benn seul fii boo xamante ni moo doon taxaw sur seen di break dance te boobu yàgg na boobu amagul sax quinze ans amagul 16 ans côté yooyu noonu yàgg na li wax nii. Mhm. comprendre loolu rek déjà talent la ci artiste. artiste la euh, rappeuse la day rab en même temps day fecc. pour te pour expliquer la benn anecdote bien avant 2017 avant muy génne premier single am euh, SDF bi. Mhm. doron doon féete anniversaire am ci benn boîte de nuit bu nekk fii ci Dakar. léegi ba ñu soufflé bougie ba pare ci biir euh, boîte bi ñu may ko piste bi. Mhm. mu solu comme solu artiste. mu solu comme solu euh, artiste bu war a prester ci kaw scène. ñëpp di ko xaar ñëpp di ko seetaan. Mhm. moom kese te teewul micro maanaam boo commencé gul waay. Mhm. mais mu def ci fu artiste maanaam mu fecc yëngal foofu yëpp loolu déjà qualité la talent la. Mhm. loolu mën na expliquer ni que kii elle a du talent. Queen Dollars. on peut dire que c'est une artiste entre guillemets complète. ouais ouais okay. ouais je dire. tu confirmes. waaw yàgg <laughs> bien sûr. artiste moom complète macha allah. Mhm. Mhm. d' accord alors euh, Queen euh, on est ce que amoon tamit euh, droit d' auteur boo war a jox Omzo pourquoi tu as préféré coller à ton nom d' artiste Dalleuse fille à Papanga une fille qui est née dans une famille friquée avec une cuillère d'or dans la bouche voilà d'où est venu ton nom là. non droit d'auteur moom dañ ko jox Omzo parce que moom moom daal. parce que ah, moom bosam dafa njëkk jot rek. daa njëkk dem génn mu nekk Omzo daal moom ba tey daal la man daaleuse laa. du daaleuse. man daaleuse laa au pluriel ndax xaalis di gën a bëri bi nii. <laughs> Euh, man sama daaleuse mi ngi jóge ci benn texte bi may wax la reine dollar est dans le fucking bâtiment. ci mhm. loolu jóge. di diggoo woon ma doon ak sama tur. la reine de. dollar. Mhm. est dans le fucking la bu ma doon bind. léegi dama defoon ci sama tur cuir ma ne cuir rek dafay kii du kii day simple noonu dañu am li ci collé ñu xool ma ne ah comme dama xaw a bëgg tuuti culture américaine ak yooyu. Mhm. ah dama collé ko mu nekk daalis. Mhm. voilà d'accord. loolu loolu leneen la. Mhm. dafa tase nii rek. est-ce que tu le connais déjà vous avez. xamante nañ nii nii nii ci Instagram bi nii mais mosuñoo wax. voilà. il a jamais apprécié wala mu ne la sa dalleuse bi am ci benn petit commentaire. non non mosuñoo wax. musul wax ma wax à part euh, Instagram ak yooyu. Mm-hmm. Instagram. Instagram. <laughs> ay waay xoolal dama do topp. dama do topp caaxaan yi waay Mimi. d'accord wax si Mimi dama koy doone. <laughs> alors est-ce que tu peux nous parler de tes débuts euh, c'était comment c'était évident de devenir rappeuse c'est parti d'où d'ailleurs une passion un rêve ou bien. déjà man mën naa wax ne musique basage la ci man. mais soo commencé lu Aziz di wax nii léegi ma si toppaat di si wax. Mhm. parce que man ba ma gënee nekk xale moom dama ko doon topp tout le di ko topp mu may yóbbu ay euh, anniversaire ak mhm. yenn yu mel noonu may nekk di tourner di break dance di roulaat di fa toj. Mhm. nekk xale di ngibbisi ñu may tëbbal ay palette kii fenêtre di def noonu di wër nit ñi di apprécier comprendre. ma dem di dem di dem ba tey moom moom ma dugal ci musique moom. bu dul woon moom du ma nekk fi sax naan damay jéem a rab chaque jour ma ne ko yaa ma dugal si musique yaa ma tooñ ba pare nga bëgg a génn moo tax chaque jour dama koy topp ñëwal ñëwal ñëwal. Mm-hmm. musique man dafa lekk sama deret. Mm-hmm. déjà man dama bëgg musique dama bëgg li may def. Mm-hmm. man damay feebar sama bopp di moo metti di exploser sax damay wax yaay tegal ba musique bi mun ma xanaa feebaroo ma ne ko tegal xam naa ne dinaa xaw a doonu. da ngay dem ba day dafay bokk ci yow. ngay dem nag di toj tuuti tuuti tuuti yenn affaire yi. Mhm. après xam nga li nit ñi di commencé nit ñi di la xaw a xam yooyu. Mhm. day nekk si yow. Mhm. nga dem comprendre nag physique bi nu mu demee ak yooyu. d'accord voilà. tey jii sa célébrité noo koy jaugé est-ce que tu sens que tu as déjà ta place dans la cœur de mélomanes ñi nga xamante ni ñoo bëgg musique. loolu moom xam dafa war a mën a nekk. parce que boo waxee musique boo ci génn pour man boo ci génnee kii daal amul sens. ah ouais parce que man dama xam li may def. dama mën li may def te duma toog ñu ne ma eh, li nga def mën nañ wax lii nag dee ko defee nii dee ko tege di mhm. amaana ah, que soo fekkee xamoo lu ngay def mais boo demee xam li ngay def buñ la bu mbaxee sax yaa sa bopp yaa ngi comprendre boo jiitoo xam li ngay def loolu amul sens mhm. yaa ngi dégg booy dem da ngay xam li ngay def comprendre nga d'accord noonu laa ko jàpp te àdduna nag daf nit ñëpp mënuñu la bëgg a ndaw mhm. di waa di sekk di wax nit ñi dañuy bëgg di bañ xaw ma lu si toog mais boo xamee sa bopp gëm li nga gëm xam li nga mën yàlla yàllaay fi yàlla dala foo bëgg yegg rek dala ko yeggale incha allah fekk nga gëm sa bopp. xam sa bopp. xam yow yaay kan. du daras bu jug rek yóbbaale la. voilà. léegi depuis lors quelle à été tes tes plus grandes réalisations lan nga bâtir. si est-ce que doo ko jox kii bi. mu xool ko. Aziza nga koy buux. tey daa indi porte parole am. Mbadou dafa bëgg lu yomb de ah. kii moom rek nga ko waroon bu bàyyi ko mu ñëw. mooy loolu quoi. mais bon euh, vu que dafay soog a commencer. parce que amagul benn projet. sauf que génne na ay single. ak benn vidéo. Mhm. xam nga am na trois trois trois trois sons. Mhm. ak benn vidéo. moom la moom la moom la defagum quoi kon euh, du yomb mu mu am lu mu tabax parce que ba léegi dañ ñun dañoo nekk ci euh, début. Mhm. on est tous euh, ñu ngi ñu ngi soog a door quoi. Mhm. te kuy soog a door bu tegoo ci yoon bi am na fu mu teg bëtam bu fu eggee rek su boobaa dinañ am possibilité pour commencer di defar pour commencer di defar loo xamante ni même bu ñu demee dinañ ne lii Queen moo ko def. Mm-hmm. waaw noonu la demee. d'accord alors trois singles yooyu kan moo ci jàpp parce que on sait que au Sénégal la musique ça requiert beaucoup de moyens. Mm-hmm. comment est-ce que vous avez fait pour euh, avoir euh, ces ces ces singles qui sont disponibles. Euh, tout d'abord sànq wax naa la ko. Mm-hmm. nee moom dafa gëm lu muy def dafa am fulla ci lu muy def. ba pare daf ko bëgg te nit ki euh, critères yooyu bu nekkee ci yow rek. Euh, nga bëgg a benn affaire dalay jaral lépp dalay jaral guddi dalay jaral bëccëg mu jaral la lépp mhm. te moom euh, yàlla dimbali na ko genre genre genre nit yi nga xamante ne la bu bu ñu màttee rek dafay dagg tey bu la woon suba suba damay def benn vidéo bu war a fay un million jàppal ni suba da day métti rek da koy def mhm. déjà loolu rek dinañ ñu gën a jàppale pour ñuy ñuy maanaam sànq wax naa la ko kuy naaw mooy neex a jàppale mhm. tey jii euh, am na am na yenn yenn yenn yenn yenn euh, détermination yi nekk si yow. Mhm. da ngay neex a jàppale. Mhm. même boo boo tàllul kenn sa loxo ne ko jàppale ma nit bu la gisee day xam ne kii li ne bëgg na ko gëm na ko. est-ce que am ngeen jàppale boobu jàppale boobu nag du ma ne am nañ ko à 100 pour cent. Mhm. comprendre nga euh, il y a sa famille d'abord. ku bu taxaw thème boo xam te ne ci lu mu dugg rek dañ ko ci gën a jàppale. xam nga loolu benn benn benn benn surplus la. xam nga ak ay bonne volonté yoo xamante ne à chaque fois bu ñu yëkkatee benn affaire ni que dañoo war a def son wala dañoo war a def vidéo am na ñoo xam ne nañ si jàpp. mais du comme nu mu war a demee carrément donte sax ñun euh, basé wuñu nit pour pour demuñu ci kenn pour mu jàppale ñu. am nañ ay nit am nañ ay ay ay ñoo xamante ni yàlla euh, kii ne leen macha allah. Mm-hmm. mais jëluñu lancé boobu quoi. sérieusement jëluñu lancé bi nga xamante ni lu ñu bëgg a def rek dañuy dem taxaw ci nit ne ko dañoo bëgg a def lii dañoo dañuy jaayante ba keroog ñuy mën a toll fi nga xamante ni. lu ñu bëgg lu ñu bëgg a lu ñu bëgg am rek bu ñu yootoo dañ ciy jot quoi. d'accord xam nga de ce fait que am. Euh, sa sa parcours bu nice. Mm-hmm. doo nekk ngeen baal ma entre guillemets doo nekk benn lèche comme on le dit souvent quoi. Mm-hmm. xam nga tamit ci la bokk. mais est-ce que c'est pas dans vos projets dans vos perspectives label yu mag ngeen solliciter leen parce que bu fekkente ne jeune nga am nga talent. liñ naan tamit euh, am doole amul kuñ jàppale am est-ce que tam soxlewu leen ñu jàpp seen combat lool tam bu leen ñàkk cee boo lee rëy def sollicitude di dem ci les grands messieurs les grands labels demander leen de l'aide pourquoi pas si parce que mun ñu bañ a mënuñu bañ a euh, ñàkk euh, euh, def ay sollicité quoi mm-hmm. comprendre nga déjà moom kii bu muy enregistré label bu muy enregistré label bu am doole la fii Sénégal mm-hmm. Euh, muy jéggiraay Ricos. Mhm. bokk na ci label yu yu yu yu ñu gën a respecté fii ci Sénégal. Mhm. comprendre nga te à chaque fois foofu la ñuy enregistré te signé wuñu ci label boobu. Mhm. comprendre euh, par exemple label bi temps lay defee enregistrement bu ñuy ñëwee. temps la ñuy fay dem. mais euh, demuñ ci label bi quand naan jëlee ñu foofu. parce que sànq wax naa la ko boo gëmee sa bopp wóolu li ngay def jaru ngay dem kenn jël ma. Mhm. yow boo prouvé rek su boobaa bu ñu eggee ci stade boobu di nga déggul ne kaay ñu ñu ñu ñu ñu liggéey. Mhm. te am na benn label boo xamante ni jot nañoo sollicité. Mhm. ñu ngi ci euh, discussion yi mais c'est pas encore officiel moo tax mënuñu cee yéey lu lu te label boobu euh, du la nekkul label boo xamante ni mi ngi Sénégal. labelu étranger la français la dafa waroon ñëw installé wu bien avant ñuy tëj frontières yi. mais ak li yàllaay def feebar bi moo tax ñëwul. label boobu déjà ñoom ñoo ñu sollicité ñoom ñoo bëgg ñu liggéey ak ñoom xam nga incha allah bu ñu tollee ci leer ko rek dina leer parce que c' est pas encore waaw a ma gën a xam. d' accord mhm. vous êtes dans les démarches. yàlla na sotti ak jàmm. amis auditeurs je vous rappelle que nous sommes avec une dalleuse elle artiste rappeuse am na lu mu lim loolu yëpp ne moom la c' est quoi encore. nee nga nee nga artiste nga compositrice nga am na lépp am na lu bëri loo lépp. <laughs> et quoi d'autre artiste chanteuse interprète sénégalaise compositrice. voilà le mot interprète le mot interprète dans l'art musical ça veut dire quoi. laaj sama manager bi. nul art. <laughs> ça veut dire quoi interprète. non genre euh, comme bu euh, ne bu ñu nee bu ñu euh, comme. peut-être que du ma am moo moo moo bu koy bu koy kii exactement quoi mais je je peux dire le concept. Mm-hmm. xam nga mën naa expliquer genre euh, le comme benn fee am. Mm-hmm. benn fee am quoi genre benn émeute am par rapport ak ak ak ak situation euh, nu mu demee comme avant-hier ak couvre-feu yooyu noonu. Mm-hmm. nga ñëw jël fee boobu noonu def ko musique wala nga def ko vidéo. maanaam loolu noonu pour man interprétation la quoi. gis nga benn à travers le gestuel mun gestuel mën na nekk mën na mën na nekk euh, vidéo. mën mhm. nga ko vidéo parce que déjà am na am na am na benn dance boo xam te ne mi ngi tudd danse contemporaine ci art. Mhm. kooku ku ne fecc xam nga ni yow sa sa jëmm mooy fecc. Mhm. waaye boo xamee fecc boobu dëgg-dëgg bu yëngalee yaramam di nga xam ne kii lii lay interpréter. kii lii lay wax ci fecc bi ci cër yi muy yëngal. kii lii la ciy expliquer pourtant waxul. deful ay gestes comme booy wax ak koo xamante ni du dégg wala du wax comprend moom dafay interpréter euh, ci musique bu muy def euh, dafay interpréter genre mën na interpréter euh, fun mën na interpréter love fait divers tout du genre whatever d'accord alors Queen tout ça tu la appris dans une école de dance de musique ou bien tu es c'est inné maanaam da <laughs> nga ko judduwaale laa ko judduwaale judduwaale ni rek parce que man damaa sopp man dama nekk nit koo xam ne su ma bëggee dara tànk daggul lu muy expliqué du ma am jaab moom te man moom moo ma jàngal te moom bu ma jàngalee te xam naa moom ay capacité am man xam naa lu mu xam xam naa lu mu mën xam naa lu mu mën dama koy répété pour moom mu xam li may wax yaa ngi dégg dama sopp te nit boo soppee bëgg li ngay def yàlla day ñëw looloo fa demee jaw ma benn école jàngi ma fenn jàngi ma dara du waxuma nag du ma jàngi mais dinaa dem jàngi. Mhm. ñëpp damay sopp di bind waaw genre comme dans l'avenir waaw incha allah su ma xamee am tuuti yenn kii bi tuuti temps bi dinaa dem parce que foog kii forcément foog nga dem jàngi. Mhm. jàngi ba musique ma école dew ma fecc bi naturel. Mhm. damay yóbbu samay cër rek muy dem. way bi damay forcer nii di jàng nii di wayantu rab bi damay dem di bind bind bind af kii euh, dif kii daal di bind ci samay texte. di dem après soo bindee. comme genre wolof bi sax mënuma ko bu baax. Mhm. dama koy forcer sama bopp wolof yu yàgg yi yu mag yi. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. de su ma bindee xaaj ma toogaat du yàgg bindaat man damay comparer li ma bindoon ci olof nii ak nii ndax baax na. man damay toog fan sama bopp ma ne kon niveau bind bi mu ngi yéeg. comprendre nga soob rek. d'accord mais Queen est-ce que nga bëgg benn affaire dem jàngi ko parfaire ci comme sa kenn du am lum la ci jamee gënul. donc gën na nit boo bëggee bëggee dara sax balaa ñu ne la lii mënoo ko war a defoo da ngay dem jàngi. Mhm. déjà nga xam lan mooy musique. nga xam lii mooy rab lii ak lii hip hop ak lii norme yi ñi nii la tegoo lii la tegoo boo limul boo ko deful kenn du ko xam. est-ce que mën nañu tey Queen connaissance yooyu acquérir na ko. connaissance yooyu am naa ko ba mu mat. Mhm. déjà man dama dama dama oyof. damay dem bu ma gisee kenn benn grand bu xam ma ñëw laajte sol sama daal sexy la comme ni ngay wax ni dangay oyof dem laajte. dugg keneen ak keneen ba ci rappeurs yi ñëpp kenn ñii dama leen di woo waxtaan. ñii rappeurs yeeg ñëpp ku ci nekk yeneen grand koo xam ne sa deful musique. dama lay wo laaj la ci sa xam-xam nga wax ma. royu ma pour loolu. mi fu xam-xamu musique am damay dem uti ko indi. d'accord voilà daa mel ni Aziz am na lu mu ci bëgg a doole. Euh, boo nee jàng. Mhm. jàng quoi peut-être mën nga wax yeneen musique. Mm-hmm. mais euh, l'histoire hip hop Sénégal amul mosoo dégg fenn rapport toog ne man centre bi laa jàngee rap. mais est-ce que c'est normal. déjà c'est normal xam nga lu tax. Mm-hmm. rap musique gu mbedd la. Mm-hmm. seen culture urbaine musique mbedd la ci mbedd la juddoo. kon boo koy jàng ci mbedd bi nga koy jàngee te duñ ko jàng dañ koy dund. rap duñ ko jàng dañ koy dund. dañ koy dund hip hop da looy dund la màggaaleeg moom. comprends nga su fekkee yeneen musique wala beneen affaire ci aar c'est normal nga dem jàngi ko. Mhm. mais ba tey ba tey ak jamono bu ñu toll fii nii euh, comme ni mu comme ni mu la ko expliqué euh, nga tëlee xam benn affaire ci biir rab wala nga tëlee comprendre benn affaire biir rap nga sollicité koo xamante ne jàpp nga ni moo ci ëpp expérience mu leeralal la laajal la loolu sax jàpp naa ne jàng la bu dee jàng am na ci rab kon loolu lay doon. Mhm. te expliqué noo ko ci biir ay waxam quoi. mais en matière de rap moom. Euh, amul fu ñuy jàngalee rap amul kuy toog amul ku am fit ak ku am makaam ku toog ne man damay jàngalee rap ubbi sa centre damay jàngalee rap. Mhm. voilà. mais Queen est-ce que loolu du dem ba jur pëccëxoo ku neex rek wax ju n'importe quoi parce que am na ci rapport yoo xamante ne peut-être ils disent pas n'importe quoi mais li ñuy wax tam liñ naan wéy bu diglewul yeetewul ay naxaale la ay naxaate la est-ce que tam du jur bon c'est une petite médiocrité entre guillemets. man daal damaa gëm ni sooy def dara. Mhm. na nga ci am xam-xam. ma dem sàkku ci xam-xam nga dem laajte nga dem ut comme démb maa ngi fawantu di guitare te man nii damay lox mënuma guitare mhm. di foo di guitare di piano di jàng leneen la invité <laughs> gis nga man moom man damay wax nit tu es dans toutes les sauces maa ngi sauce yëpp di mhm. jàngantu tuuti tuuti te xam nga ne sax yooyu du samay affaire ndax mënuma ko man damay lox kafe géema sonal mhm. yaa ngi comprendre mais nit nit soo dugg ci dara da nga bëgg ko gëm koo xam nga dina la egg eggale fii niveau bi danga war a dem nga gëstu waxuñu nag boo dem nga jàngi mais man damay jàng ba tey nit chaque jour sax même go demoon école bu gën a mag a mag ci at kii àddina bi yëpp du tere da ngay dem jàngiwaat chaque jour sax àddina da ngay jàng leçon la. tey maa ngi toog di jàng yow yaa ngi déjà di nga ma wax loo xam ne xamuma ko man dinaa indi loo xam ne yow tamit xamoo ko. dañuy dem di yàgg noonu la fa demee. mais nañuy dem jàngi. Mhm. nga dem nga fekk nit yoo xam ne xam nañ xam nañ musique xam ne ni ñu def ñu tegal la norme nii ak nii ak nii boo koy def doo sonn. mais teel a teel gi moom mënut a ñaar. Mhm. ndax ku jóg ne damay def rap. Mhm. nga salteer nga saaga ay ndey nga wax lu la saf. loolu yàqu rab bi la. da ngay dem ba léegi boo waxatee sa waa kër rap laay def dañuy tëj ci yow da nga naan lu tax ngay def lii. mais soo dégloo rus naa sax bindi texte bu am saaga ndey bu graw man bu ma bindee son sama yaay dama koy jox mu déglu mhm. suñu waa kër ñëpp dañuy déglu mhm. léegi ku ci dégg ma wax nangam saan wax wax yu vulgaire wax waxu taaj je sais pas noonu mhm. xam nga dangay xaw a vexé loolu waaw ci kii la bokk mais si rab la bokk comprendre noonu la fa demee d'accord Queen bëgg naa xam tam seen sa famille tes proches naka la ñu gisee sa duggum sa dugg ci wàllum rab parce que être rappeur c'est un peu <laughs> voilà parce que di nga am yenn accoutrement yi yenn yenn apparence yi tes parents par exemple depuis tout à l'heure tu parles de ta mère j'imagine que moom amu ci problème ton papa par exemple comment est-ce qu'il l'a apprécié non sama papa moom mën naa wax ni da daan fayal ay nit sax pour ñu def waay sérieusement il est dans l'art nu mu tuddati deful artiste deful dara da doon fayal ay nit am na pa bi tudd santé pawu santé bi ki way santé la santé xaw ma lan ak lan ak lan ak yooyu mhm. yëpp waaw père El Hadj Ndiaye. ok sama papa yoroon na ko. Mhm. di leen fayal ñuy produire seen saawoon ak yooyu yëpp dugg na fi génn fi moom amu ci problème. Mhm. moom dèjà looy def moom dala koy wax gëma sa bopp. Mhm. soo fekkee ne lii gëm nga ko mën nga ci avance demal nga am ci sa fulla bu mat sëkk moom benn moo la am pour sama yaay nag moom dèjà artiste la. moom moom moom man kii la woon bu yàgg ba dafa bëgg àddina. moom déjà booy def da ngay def loo xam ne doo dëpp. doo këlëbtiku doo dugg ci lu bon doo dugg ci doo dugg ci loo xam ne kenn xamu ko mhm. mais tant que yaa ngi dem ci lu lay avancé loo moom dalay poussé vraiment dara naan del def nii bañee ko su ma génnee sama chemise am wëñ moom moo koy dindi dagg ko yow mënoo sañse mhm. tubaabee woo booy dem ci ay nit da ngay correct comprendre nga mhm. di la gën a ñaax ci ngay correct di wax di am ci sa fula bopp mais kenn amu ci problème voilà samay frère samay soeur ñëpp dañoo bëgg musique bi. Mhm. ba sunu xale yi nga jot leen ba mu daw daw ñëpp dañ koy kii amuñu ci problème boobu. est-ce que c'est possible d'être rappeur sans avoir de piercing ni de tatouage. bien sûr. waaw waaw. pourquoi tu as mhm. tatouage. yi nekk sama yaram yëpp avant musique la avant rap la. Mhm. style bi nit ñi di kaas. avant musique la. avant may dugg musique man déjà man. personnellement dama c'est lequel. waaw man dama sawes ci lu bopp bu ma sama jàpp sama ni may genre comme yi ngay wax ni may waxee noonu normal noonu laay waxee. Mhm. damay toog sax ñu foog ne da ngay rouler ay air wala da ngay waanewu or que demeewul noonu mën nga nekk rappeuse bu correct. Mhm. mais man gis nga ni mën naa sol naa sama lu correct toog. Mhm. mais du ma génne di wane samay laaminaan ah wala def nii mais ku ci nekk. yow yaa xam li nga fil yow yaa xam lu tax nga bind sa tatouage bi sàngam. yaa xam lu tax nga piercing sa laamin sa bët je sais pas whatever yaa la demee. et c'est pas obligé tamit. Euh, euh, donc ça ne te aucunement kon yow nit ne juger rappeurs yi comme quoi ils sont vulgaires c'est. bien sûr vulgarité doo duggee ci biir rap laa la wax musique sax da toog ñu ne kii dafa vulgaire nangam sangam te day solu correct. Mhm. Sénégal kenn mënu leen satisfaire kenn mhm. xamuñu lu ñu bëgg. Mhm. da ngay correct ñu ne dafa waaw dafa yëw. dafa modde li ñuy wax ci yeneen rappeurs yi dafa lii dafa lii nga vulgaire. man je suis pas vulgaire. man je suis sexy. ay mm-hmm. classe man noonu doxee. la différence. ma wax la su ma jigéen da ngay sexy. Mm-hmm. Euh, mi mi xoolal ni ngay sexy ni jongo ma bàyyi sa caaxaan yi. def sa sa sa sa sa sa sa bu ne moot. yaa ngi nii xam nga vulgaire voilà mm-hmm. léegi nit man jigéen en tant que femme je suis sexy. je ma nangu tamit ñu naan kii dafa vulgaire. mais boo duggee doo ci comme li may la wax ñëpp mënuñu da bëgg a mm-hmm. boo nekkee ci mbir di nga am ko la joxoñ ne kii nii bu tuddee toogee ci rukkam di nga koy jooyloo te du ko mës a wax. Mm-hmm. comprendre la mm-hmm. waaw voilà loolu demee d'accord. Très bien alors on sent que ces dernières années le rap sénégalais se féminise. jigéen ñi ñu ngi ciy dugg de plus en plus. il y a beaucoup de yoo xam ne jamono yi ñooy def nii rab bi changement boobu d'après toi c'est dû à quoi. ah mais rap mais man daal man xaw ma parce que musique da nga koy fil ba pare. du ma wax sa rap musique danga koy fil ba pare bëgg ko di ko dund comme li Yang Ziz di wax. nga soog cee dugg parce que kuré euh, mee dugg ci rap. xamuma lu tax mu def mu dugg ci. Patek Massamba Aïcha Mimi lu tax mu dugg man xaw mais boo bëggee li def nga bëgg musique c'est fort kii forcément pour nga dugg ci mais man. li tax ma def rap man sama frère bi toog ma def ma def rap Yang Ziz moom moo ma dugg ci musique moo ma inspiré moo ma jox jom bi ba mu mat nee ma am. xool ko ba mu doy ma mu ne ma yow pare nga. Mhm. man nag ma jël ko bëgg ko xam li may def am ci sama fulla gëm ko teg ci sama bakkan yaay comprendre mhm. gëm li may def. Mhm. looloo tax ma dugg si rab mais ñeneen ñi peut-être ñoom it da la neex rek ñu dugg ñu def rab ah. waaw loolu moom mënuma ci kii quoi. sa bakkan nga ci teg. voilà en ce moment tu es prête à aller jusqu'où. <laughs> fu yàlla yam. faraaw gi yam. d'accord fu góor gi ma wax idole mais peut mën nga ci am modèle. koo xam ne peut-être elle t'inspire c'est qui par exemple. waaw man moom Sénégal ak aw ma idole international ak fépp aw ma idole. maay sama mhm. lu ma def ci man laa ko gisee. Mhm. lu ma def ci Young Ziz laa ko gisee. mën na nekk ci ko bañ a nekk ci côté accoutrement. même pas accoutrement. waaw mais mën na nekk ci côté idéologie ak koo xamante ni gis nga ni peut-être rabam. c'est instructif c'est qui. wallaahi kenn kenn kii xaw online kenn nii ici nii ailleurs fépp aw ma idole sama idole bopp. lu ma def di dem dem maa ko jàngal sama bopp à part sama frère bi doom. Mm-hmm. je te donne par exemple je te donne un exemple une icône OMG tu penses quoi d'elle? OMG OMG euh, premièrement moom sama sister la. Mm-hmm. sama sister bu baax la dañuy waxtaan WhatsApp des fois nii gëj nañ gisati sax waxtaan. qu'est-ce que vous vous dañuy waxtaan ci jàmm ci euh, salaam ci àddina. Mm-hmm. ñuy waxtaan ci fulak yooyu. mais soo non non mosuma laaj conseil mais des fois dañuy waxtaan yi ci àdduna daal voilà. Mhm. di woon bindante ay whatsapp. mais ba tey gisanteeguñu la. voilà mën nañu xaar un de ces quatre. duo featuring am diggante Queen Dollars ak euh, Angie. waaw loolu moom laa mel ni existe mooy kii yooyu man xaw si yooyu dara featuring yooyu xaw ma <laughs> du ma laaj dara dama ñëw rek ñu ma am nga sàngam. d'accord kay ko. voilà. Ziz yaa ngi dox loolu wala. non Euh, artiste boo ko yoree du du du kee neex na ma rek. Mm-hmm. dafa war a jouer ak moom. maanaam dafa war a yow da nga war a jàng ba xam ni que kii euh, bëgg na fu mu fanaan kii bëgg na ko wéttali nga soog leen ngeen nga soog leen mën a boole su boobaa euh, tëj buntu bi du leen boole. Mm-hmm. comprendre nga te nee nañ garab ci kaw lay fekkantee. Mm-hmm. xam nga ñun dañuy dañuy soog a door quoi comprendre nga dañuy def petit à petit xam nga après fii si kanam. Euh, ku ñu dem ba gis ni que kii kiwin mii war na mën a def son ak diw ak ku mun ci doon. Mm-hmm. moo xam euh, Queen Biz moo xam euh, comment il s'appelle encore. OMG OMG wala keneen ak ak ku mun ci doon quoi ñu xam ni kii war na mën a war war na mën a def benn affaire boo xamante ni dina doon lu nice na doon lu ñëpp di di di di di apprécier. Mm-hmm. ñu ñu ñu soog a dóor loolu quoi. d'accord mm-hmm. alors lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ni damay dellu ginnaaw tuuti mooy sa enfance t'étais quel genre d'enfant t'as fréquenté quelle école t'étais sage genre koo xamante ni elle était toujours chouchoutée par ses parents euh, qu'est-ce que tu euh, relativement à eh, man moom xam naa d'abord faut grandir yaraax la non non man j'ai la la la mm-hmm. def fa ay defe naa ay cinq ans yooyu après ma soog a ñëw yaraax ci sama yaay. Mm-hmm. ñëw fa màggee yaraax juddoo juddoo kii dem yaraax màggee yaraax continuer sama avance yëpp ba tool nii fa laa ko nekkee à part jaabante yooyu. Mm-hmm. mais man nag damaa terrible lool nag. Mm-hmm. man damaa nekkoon bandi école ba. waaw ndax damay jiite damay jiite ay ay kii ay loolu mu tuddati. ay gang nekk ci kanam te maa ca gënoon ndaw ñu may jiite tollu nañ comme étage bi. doxuma jàpp. waxuma jàpp damaa terrible lool moom loolu moom lu ma ko nëbb moom. et jusqu'à présent tu es terrible. non non wala tu assagi. non léegi damaa màgg wax nga wax bi damaa dama dama dama bàyyi yëpp. comme comme ne woon dem attends dama doon dem ci sabar yi di fecc. Mhm. di di tëb. kon ñu may jox ay saabog di mbalax di tëb bu baax sax. <laughs> waaye mënatoo ma instant bi waaw ah, booy Grand Dakar <laughs> man Grand Dakar laa dëkk. Mhm. laa yaro laa ma euh, laa yaro mhm. mais yaraax laa màggee. Mhm. ñëpp yaraax lañ ma gën a xam sa Grand Dakar sax bu ma fi demee nii amaane que mën naa réer dootuma xamante yoon yeeg koñ ak yooyu. mais dama damaa bu lool nag. moo tax léegi soo màggee da ngay calme. tu as fait l'école jusqu'à quel niveau. man troisième secondaire laa waaw fee nu mu tudd Blaise Diagne. falaa dem Aziz mooy moo ma yóbbu ma jàngi may daw di rëcc. teg ko ci télé a Aziz <laughs> damay yóbbu moo ma yóbbu. <laughs> daa mel ni yaa Aziz <laughs> di ma yee. après man seen ma yar moo ma yar maag moom dara mënul si ñun moom moo ma yóbbu yàpp ah. sama loxo yee ma yóbbu ma école ma jàngi. Mhm. ma jëlaat bi su wàcc dem romb ko bàyyi ko foofu. d'accord voilà. mais tey jii ñu gis ni sa niveau scolaire soriwul. Mhm. quand même yenn niveau yi gis naa parce ku. ku amul yenn connaissance yi doo mën a wax yenn ci anglais comment tu as fait tout à l'heure tu m'as dit que da nga jàngiwaat pour pas faire ton niveau. Mhm. man déjà sama niveau anglais waroon na weesu fii. sama niveau parce que sama niveau français may ma rek waroon na weesu fii. parce que waaye may ma ma ñëw ci laajo atia ah, ma nu mu tudd ñi ma doon jàng sama maîtresse ah, nu nu mu tudd sama kii maître yi ma doon jàngal. mu mhm. fàbbi. maak moom dañ koy ba c'est euh, que quatrième cinquième quatrième. Mhm. dañ doon jote même même mem kii bi la ñu am même maîtresse bi la amoon. Mhm. yaa ngi comprendre dafay ñëw ñu jote ak maak moom juboo ñu daal. Mhm. moom moo gën a yàq sama jàng. kooku dinaa ko wari fu mu nekk dëkk dëkk. dinaa ko bindal son ko. Mrs ak anglais bi Mrs Thiam xaw ma Mrs xaw ma lan ak madame Jiba moom jàpp naa ko. dinaa dox ci àdduna ba wër ko ñaar ñooñu ñoo yàq sama jàng. bu ma duggee français ñu dàkk ba. su ma duggee anglais ñu dàkk ba mu diis. zéro dix onze yooyu fa laa yem. Mhm. musuma paase leneen <laughs> yaa ngi dégg. ñooñu mhm. dinaa leen ci woo. yow yaa nii laaroon rek. non wóoru nii laaru ba c'est nit moom laa la expliqué àddina ñëpp ñu la bëggandoo. Mhm. di nga nekk tëri élève boo xam ne àddina école bi ñëpp da nga fay def buzz ñëpp dañ lay xamandoo. Mhm. mujj gi ñoom dañ lay jéppi. Mhm. prof yi si boppam ñoo lay jéppi. mais est-ce que yow buzz boobu nekkul yow yaa ko suscité. créé yi la man dama am sama bay rek. yàlla dafa am ñu mel noonu. waaw dafa am nit ñi voilà su ma defee lu baax comme ba ñu àndoon man ak yow ñu def lu baax. yow yaa ci gën a fës. ñu ànd astafurlah man maa ci gën a fës ñu ànd ñu def lu bon man maa ci gën a fës man noonu laa mel yàlla nii la ma juddoo sa ni ma juddoo nii laa mel sama bayre bi sax sama juddu mhm. moo tax lu ma laal lu ma laal sax ma gënu lu ma laalu ñaari ñooñu nag dinaa leen wër si àddina dinaa toog si rajo yi toog ci télé ne la ñoo yàq sama jàng waaye teewul de moom laa la expliqué boo bëggee dara mhm. dañ nga ciy xuus mhm. tey sa liggéey bi ngay def bu ma ko bëggoon suba suba ma doog ngay wax may wax parce dama ko bëgg xam nga bëgg ko moo tax ngay def nu mu tudd kenn notable lew li ngay wax nii parce que sa talent xam nga ko mën nga ko kenn du la ne nii ak nii fi ngay toogee mm-hmm. voilà anglais nag dafa nekk loo xam ne man dama ko bëgg mm-hmm. culture américaine mm-hmm. di wax nii ak nii bu ma gënoon dégg dégg dégg ba mu baax li may làkk olof sax dañ koy kott dañuy wax non non mosuma dem États-Unis samay sœur ak samay frère moom ñëpp dem rek man maa ngi fii Sénégal mais comme bëgg anglais bi di ci foo di ci jàngantu comme am na yenn mots yoo xam ne à travers mes textes sax moo tax ma xam ko damay bind genre benn mot. mais am nga quand même ku lay coacher. ok moom miy toog existe daf may moom anglais nga yàqu. Mhm. moom moo may jàngal des fois dama koy tooñ sax di ñuy waxante anglais bi noonu ñu kii. Mhm. mais kenn mënul. Mhm. ba tey da ngay jàng. du ma ne mën naa à 100 pour cent mais mun naa loo xam ne boo ma laajee noo def ma ne la maa ngi fi ko ñëpp ni koy waxee. voilà d'accord. Euh, waa tey jii jigéen ñi sincèrement d'après toi est-ce que am nañ seen place ci rab bi et aussi est-ce que jàpp nga ni am nañ tamit seen chance. ah jigéen ñi bien sûr. Mhm. am nañ place yu ràbbi bu baax a baax. Mhm. juste ñu teg ko norme yi ñu ko war a tegee. yan normes xam fi ñuy aw déglu xam fi ñuy aw. Mhm. ku ci nekk fi nga aw xam nga ni ñuy wax musique dafa yaatu. démb gis naa benn artiste bu koy kaas moom def na fi lu yàgg après kenn faareetu ko mu nekk si télé bi di ko kaas ak yooyu yox ñu ko gëddam. léegi amatul lu mu tijjee studio mënatul lu mu prisé ak yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp ñu ngi koy dégg ci télé bi te ñu mag lañ fi woon. dem ba mënatoo amatoo loo prisé loolu ñaanu ci at. yaa ngi ci artiste yaa ngi comprendre léegi bi jigéen ji am nañ seen wàll bu baax a baax ku ci nekk nga xam fi ngay jaar. Mm-hmm. ku ci nekk nga xam fi ngay teg sa tànk ak noo koy doxalee rek yàlla day jaw mm-hmm. muy góor ak jigéen. Mm-hmm. man nag sama bopp laa xam personnellement rab bi amul góor amul jigéen. faale moo ma sàmba faale moo ma debba amul kii moo ma dàkk rab amul kii moom a dàkk rab man maa dàkk rab Sénégal. ba mu daj man loolu laa xam. voilà sans être prétentieuse mais wuyu ma parce que tamit dara am na ci. y xamante ni bu dañ na naan mën nañ la jàppale mais foog nga am o oh, foog nga am foo aw ñoom est-ce que Queen a été une fois victime de ce genre de truc. victime moom si la dëkk. sérieusement chaque jour victime si la dëkk moo tax ma ne la damay wax duñu ay pël Fouta dina bàyyi di ko wax sax parce que dama am rek xaritu pël Fouta day mel ni tooñ la. Mhm. ci dëkk bi lañ dëkk duñu ay nabar sule. Mhm. doo ñëw rek di yéeg suñu kaw doon di jàll. Mhm. mënuñu da nga koy wax koo xam ne xamul lu xew si dëkk bi. man damay juddoo ak ay góor. xam li ñuy def di toog ak ñoom ñuy wax ni mbir mi di doxeek ak rab bi di tegee. Mhm. rab bi business la de game bi ku ci nekk ku jékku rek daan sa morom. Mhm. man chaque jour da ngay wax nit da lay proposé nee na dama laa gis sàngam gis li ngay liggéey dafa nice. Mhm. ma apprécier mais boo demee ba jàkkaaroog moom leneen la lay wax. am na sax benn affaire bi ñu doon teg ci benn sound yi mais xam naa après dinga ko dégg yow mi ngi ñëw nii. ci loolu la ñuy wax. ci affaire nit ñi li ñuy def ay promotion canapé yu kenn xamul. noonu la fa demee. dafa am ci dëkk bi de. lu leer laa lay wax di. chaque jour man dama koy dund. chaque jour da ngay dem boo waxee nag nit ñi duñ dañ lay ragal. Mhm. dañuy foog ne da ngay wax da ngay sos wala dañuy demee nit mais ku xam ku déglu. pour déglu nit ki bu baax a baax attentivement di nga xam ne kii li muy wax fu wër la ko teg. Mhm. kuy déglu nag laaw wax ma kuy déglu rek pour di yàq mhm. voilà dafa am nag. Mhm. voilà mais psychologiquement yow lool est-ce que dina freiner sa élan lan la lay def du la wàññi. xaaral parce que li maa ngi doon fàtte sax li ma bëgg wax. li may wax promotion kii nu ma tudd affaire yi dafa am. déjà nit yi dañ lay ñëw di la jéem a kar di yàq sa business di xool xale bi ni muy demee. dañuy xool euh, dañuy naan kii am na jàpp am na skills am na nii nii xaar ma jéem ko xool ndax day dem peut-être dina yomb du dem man doxew ma noonu aw ma jot boobu mais dara yombul fii ngay business en tant que femme yombul dara yomb fii parce que boo bëggee dem studio di nga tasante ak benn waga bu la jéem a kii xoos di xool ndax yomb nga am yomboo nga dem ki lay tëj tourner vidéo nag dina la jéem a tapage boo ñàkkee fayda nag ñu jaar sa kaw rek nga am li nga bëgg tamit boo siwee ci noonu Mm-hmm. boo tëddee sa njëgënaay doo doo doo doo nelaw de Mimi ba xam nga loolu. Mm-hmm. waa kay lépp nag man damay wax nag ci kepp kuy jigéen. Mm-hmm. te nga nekk ci rab ci samay moromu jigéen yi. xamuma nag damay wax ci sama xalaat bu gàtt. sa ful la bul ko romb. matal li nga doon ba mu mat sëg. parce que bu yàlla ne waa boo waree egg ca Washington yegg ca fi nga war a yég kenn du la sa talent moo la yóbbu. gëm li nga xam mii boo gëmee ne dañ la yow da ngaa war a tëdd pour fayoo. da nga yàq sa. sa sa sa sa kii. Mhm. yàq sa awra yàq say mbir te sa ajo du fajo mhm. sa aajo bu fajoo wax sax boo tëddee doo nelaw yàlla ci yàlla musal man daal ci loolu laa leen di yeesalaat. d'accord voilà. Queen moom bu déggee jeunes yi rawatina jigéen ñi léegi lu ñu sañ xale jigéen léegi am nañ fit ah gis nañ réseaux sociaux yi niñ ci mel ak tamit euh, wàllu matérialisme lim leen jaral Queen bu gisee faits divers yooyu yëpp ak tout ce qui se passe dans cette société qu'est-ce que ça lui fait en tant que porteuse de voix. man moom personnellement dama daan damay bàyyi di si wax parce que su ma waxee sax damay bëgg a jooy man sa man dama sama xool dafa gaaw a tooy. Mm-hmm. comprendre nga parce que da ngay loolu yàgg na fi yow fi mi loolu peut-être nit ñi ngi koy soog a gis. Mhm. dañuy wax boo seetaanee yenn affaire yi sax di nga ne ah ñu yàgg nañ def lii comprendre nga. Mhm. ngay toog mu lay metti tout le temps ma damay kaas ak yi. Mhm. dañuy wax damay damay tooñ gel yi damay critiquer lu lu di leen tooñ di leen kii di leen attaquer attaquer wu ma leen. man du ma ne man damaa baax. mais am naa loo xam ne mën naa ko wax sama benn nit boo xam ne bu toogee sax dina déglu Queen daal su may wax. yaa ngi dégg. man daal en tout cas damay wax ñëpp ñu changé doxalin. changé technique. jigéen carrière am dafa gàtt. benn at ñaari at ñetti at nga dem say am cinq doom toog case ñëpp fàtte la. kenn waxatul say wax. nga def fi say vidéo yu jaaw ko toog suba ñu tegal ko say doom yàlla ci yàlla musal. man de amul du du ma wax sax jigéen. du ma wax sax xale ndaw yi euh, célibataire yi beeg femme mariée beeg. marié ku euh, xamul dara ñoom ñëpp ñoo yem. parce que da toog sa biir kër sax ñu indil nga toog si sa jàmb ñu indil la musiba doo xam boo xam ne yow mosoo ko xalaat da nga naan lii fu mu jógee. wala ñu collé la ay dara récemment monté la ay taatu neen doo sax comprendre mu demee. mosoo dund lu mel noonu. non non. wax dëgg yàlla mosul am. man daal damay ñaan ko ci nekk rek nga nekk sa. esprit bopp. yow ngay ngay ngay dawal say pion bopp en tant que femme. bu mhm. nangu benn xale bu góor di la di la def loo xam ne yow filoo ko sentiroo mhm. man loolu laay waxtaan ñu moytu bu baax wax dëgg yàlla. d'accord parce que ñiy def ñaawteef yi mënoo leen tëye. Mhm. dañuy xool nu mu gën a ñaawee ñu yàq fa sa der mënoo si dara. d'accord kuy déglu ko xam. même da ngay xam nit ki sax mën nga ko sa ñaaw ñaawteef dina ñaawal sa xel. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. nañu yàlla suturaal rek ba mu dara ci kenn ñu. bàyyi ci xel. baax na ci. Mm-hmm. à part euh, promotion wala peut-être des indi des propositions un peu indécentes yoo xamante ne xëj na mës nga ko jot te neexu la ban expérience nga dund ci li ngay def mu metti la waaw ah, man tey jii ça peut même susciter des regrets. waaw parce que benn artiste ne na nit boo dundoo lu metti danga ko war a wane. ñu xam artiste la war a def. léegi man dama dund loo xam ne daf ma metti tellement que mënatuma woon sax téye sama bopp. defoon naa benn affaire kay vidéo sax expliqué ba nit ñi jëlaat di riposté euh, li ma doon saaga waa ji. comprendre nga mais euh, cas bi yëpp entièrement dugaluñu ko. mais moom laay wax après nii tuuti rek di ngay gis li may wax yëpp. ñu comprendre ma lii ak lii laa expliqué. voilà d'accord loolu mhm. dund nga ko mu metti la. dund naa ko mu metti ma torop mhm. waaw mais quand même am na loo xamante ne dund nga ko ci muy bonheur. bonheur ci musique bi waaw yow loolu <laughs> ci war sa carrière. chaque fois waaw li ma li déjà fan si macha allah. Mhm. chaque jour da ngay gis ñu jugee fépp ci àddina. Mhm. contact yi ñëpp di la di la kii di la encouragé. Mhm. daan gis naa liggéey bi ñu ngay defee ak noonu yëpp ñooñu sax mënuma leen fay. xaw ma ci kenn ku ci nekk su ma mënoon dinaa dugg kër ak kër nee na yéene bi nga am ci man. dangay dox si mbedd bi sax ñu lay ñaanal te xamoo leen xamaa naanoo leen dañuy déglu ngay waxtaan nii rek nga toog nii sax ñu lay ñaanal. Mhm. loolu ma leen ma ciy kontaan lu daal. Mhm. parce que loolu mënu mësuta am. Mhm. voilà ngay dund toog nañu di la bëgg di apprécier di jooy di la woo dama laa bëgg fépp fépp loolu daal maa ci sant yàlla di leen sant di leen gërëm ci loolu. mais lan moo tax duñ la gis lu bari ci ci ci plateau te yi plateau télé yi moom la ñu war a def nii TV Tour TV yëpp. Mhm. ak bi Covid bi xam nga doo mën a dem. Mhm. déjà am nañ clip bu bees bu génn clippé nañ ko Dangerous Girl. Mhm. mu génn nii deful sax mois Dangerous Girl c'est toi. Dangerous Girl waaw noonu <laughs> noonu dama ne kër daal su ma tudd Dangerous Girl. <laughs> Uh-huh. Dangerous Girl léegi. Euh, clippé nañ ko ba mu nice. ñu waroon ko def Tour TV am na yenn TM euh, TMS. Mmh. Télémusique Sénégal ak yeneen Afrique yeneen chaînes yëpp tegoon nañ ko. Mmh. mais exclusivité bi pour expliquer li may wax. Mmh. lool lañ bëggoon mais amuñu ko mais sant yàlla daal xëy na yeneen yi dina ñëw. incha allah mu ngi voilà mi ci yoon bi. alors euh, ay programme de de yi rap mel ni ay cypher wala ay je sais pas ci ci ñaata nga ci participer. waaw cypher cypher yi ma participer defe naa bu dijjee taf la. Mm-hmm. taf bu lekk Africa 7 boobu daal mos naa ko participer yeneen yëpp dama doon dem di seetaan. tu n'as jamais organisé un événement à Yarakh pour euh, def ba ay démonstration non non commencé guñu sax xam nga li ñu doog a commencé moo tax mënaguñu organiser yenn affaires yi te ñu ngi nekk suñuy projet di am yenn yenn ñuy entamé di ko teg ndànk-ndànk xam naa suñu paree ci loolu nag dinañ ko teg incha allah. Mm-hmm. nee nañu tam Queen góor ñi sonal nañ ko torop mooy juma jàmm mooy yoma salaam <laughs> chaque jour ñu laaj ma est-ce que tu es sénégalaise je suis sénégalaise. di làkk wolof je sais pas man. parce dama koy sur euh, les réseaux sociaux sont normal artiste bi dafa war a sexy. Mhm. saf jigéen. Mhm. am nga mimi yaa ngi jongo ma. d'accord d'accord oh. <laughs> d'accord moi je une dame je suis madame Ndiaye yow tu es une demoiselle. <laughs> léegi mais est-ce que est-ce que euh, yooyu noonu ngeen di def di ko def ci réseaux sociaux du leen exposé tamit. ci tentation yi. waaw loolu mënut a ñàkk parce que léegi nag réseaux sociaux bi dafa yàqu. mais est-ce que du yéen kon yéen a yeb seen bopp ci xottu gerte. ñun yebuñu sunu bopp mhm. jigéen dafa war a def yëfu jigéen waxuñu na nga abusé. de trop di de wane say taat wane say ween boo ko ci nekk di la ngawti ngawti mais mhm. na nga classe. tendance de voilà dafa xew. tendance de nit ñi ah. koy def. déedéet jigéen ñi wane seen xottu taat ak kii ba leen di defee tendance d'ailleurs yow loolu ba quelle est ton idée là-dessus les filles qui démontrent qu'elles ont de belles formes ba yenn leen ci fekk. man loolu dama koy ñaawlu. Mhm. dama koy ñaawlu lu bari bari bari parce que nit di nga di nga gis nit rek mais xamoo ko. Mhm. te femme boobu. ku baax la. man xam naa ko. sama copine la fréquenté naa ko waxtaan nañ toog nañ toog naa biir këram ñuy waxtaan ñu échangé ma rek moom. mais soo xamul nit ki danga naan dafa bon dafa nii mais borom nit nit ku baax la borom xol bu rafet la mais nit nag di nga xaw a ñàkk xel tuuti ci benn instant topp nit ñi ñu lay rey. di la kii moo la gën a def lii kii moo la gën a def lii nga topp nit ñi ñu lay rey rey ba ñu wane na ma ngay def musiba boo xam ne yow mii sax yëgoo ko. yaa ngi def loo xam ne nit ñi ngi lay mhm. da ngay da ngay kokkiluwaate da ngay gën a da ngay wax nit amul sens. Mhm. nit ki da ngay dellu ci la nga newoon. Mhm. boo delloo ci la nga newoon ñëpp dina la respecté naw la. tu es fiancé en ce tu es un cœur à prendre tu es dans une relation sérieuse pour ñi nga xamante ni ñoo ngi fee kiwintee leen nelaw man moom nekkuma ci dara wax dëgg yàlla. relation nekkuma ci dara. maa indi sa bopp problème bien sûr neewuma ci dara yàlla xam na loolu. parce que jot bi sax amuma ko. déjà man ay 7 heures 9 laay tëdd. Mhm. damay liggéey di bind ay texte ba secteur heures 8 heures chaque jour. léegi laa ko wàññi nii sax di dem. kuy liggéey ba boobu tëddaat boo yeewoo 19 euh, heures. Mhm. kon kay ngay xam ngay am jotu relation sax amul jot bi. Mhm. voilà. du ma am jot bi tu n'es pas amoureuse kon. je suis pas amoureuse aw ma jot bi sax. te bu ma tu n'as pas de mec. bu ma amoon mec sax dina ma bëgg a gis mu tëkkoon. Mhm. parce que man amoo ma jot bi. mais quand même bee ma jàpp ba damay fàtte sax man sama bopp. quand même voilà. ci vie wu nit ki la bokk. wala yow programme woo am sa borom kër. Ah, ok mais au fil du temps dina ñaw dina ñëw ma xam ne ma xaw a libre tuuti mais instant bi moom dama dama taluma man sama bopp. Mhm. ndax business bi job bi. Mhm. wax dëgg yàlla. ku ñëwoon tamit di ma gis bëgg gis mu tëla ndax doo ma gis doo ma dégg. du ma am sa jot kon kenn xaar ba si rek. <laughs> quelle est la plus grande qualité de Queen. fulla ak fayda ak jom. wóolu sama bopp gëm sama bopp xam li may def. bëgg li may def dëgër bopp. Mhm. dama mhm. mhm. à part être rappeuse tu fais quoi dans la vie. man am Euh, am na kii shop bi ma bëgg a tëjee. Mhm. ak sama marque daal Quendal Scuderie ba ma bëgg def ak yenn business yi bëgg ci ay business auto tamit yooyu yëpp bëgg naa ko. Mhm. incha allah def ci yooyu. Mhm. voilà d'habitude qu'est-ce que tu aimes faire quand tu tu pas studio wala nekkoo dans le domaine professionnel. shopping shopping shopping maquillage make-up. yow waroo dugg Sénégal da ngaa war a ñibbi eh, make up mi ngi noppal. mimi <laughs> demal kon ñooy ànd de maa lay <laughs> pratiquement nag ñu ngi suñu fin émission c'était un grand plaisir en ce moment quels sont les projets. projet est-ce que duma ko jox ménagère bi rek moom mu yàlloo ko parce que man yooyu moom dafay gudd duma ko mën di wax. Mhm. wax ko dans peu de ci lan lañ lay dégg lan la fas yéene dégg. waaw peu de ñu ngi nekk ci suñu projet comme li may wax ci instant bi dañuy nekk ci ay sound. Mhm. clippé ko. Mhm. def sound clippé ko. Mhm. dama bëggoon def ay euh, affaire de EP ak mixtape ak mais comme dafa bari ci dëkk bi. da ngay def yow loo xam ne loolu nga fil muy jàll. comme lan ay def sa sound ba mu nice nga dugal clippé ko gétee di ko def noonu def noonu ba fil li nga bëgg def nag après nga defaat leneen. nekk ay tour rajo tour TV. dem ci euh, sous région yi. dem ci dëkk yeeg fépp. bëgg nañ fa dem tourner ñëwaat def ay show yu mag. ñëwaat toog yooyu daal mooy projet incha allah. nee nañu nag dara munoo ko doo togg doo bale doo toog <laughs> nee nañ xale bi tarul dara ak see bi ak tali bi c'est vrai. ah loolu loolu loolu loolu wax lu ko neex la man boo ma gisee nga xam ne togg rek laay dem mosoo mun togg. doo mën naa togg nag sérieusement xam nga la laa mënul togg suukar ñam suukar. parce que bëgguma ko mënuma ko léegi. loolu moom xam naa ne du ma ko togg sax naa. mën naa ko mais ma ko togg mais ma togg rek laay def mu tax ma invité la nga ñëw. <laughs> baax na alors le dernier mot c'est mais en tout cas di remercier waa Rewmi FM Rewmi People. Euh, nu mu tudd auditeurs yeeg auditrices yëpp maa ngi remercier di la remercier aussi yow mi ci mm-hmm. temps bi. temps amul. Mhm. jot amul. Mhm. yow nga ñëw waa xool Queen Darlings rek nga nga nga nga invité ko. man Queen may fan number one. waaye dégg loolu kon ëpp na gis nga man maa ngi la ci remercier en tout cas bu baax a baax di di remercier remercier aussi Jili. Mhm. remercier daal auditeurs ak auditrices yëpp yëpp daal wasalaam. d'accord <laughs> alors euh, le mot de fin de notre manager ah Aziz xool nga mu ngi toog tegle tànk kii ku bëgg yëfu <laughs> alors c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. oui alhamdulilah le plaisir et partagé d' abord ñu ñoo ñu ñoo war a gën a mën a kontaan parce que euh, permettre ngeen ñu ñu ñu ñu wane suñu bopp xam nga euh, wax suñuy projet xam nga exposer suñuy suñuy suñu ay œuvre euh, d' abord kon ñu ñoo war a am plaisir ak contentement de ce fait que ñu ngi leen di remercier très franchement waa mi FM ak émission bi nga xamante ni yow yaa koy nekk di animé yow Mimi madame Ndiaye di la jaajëfal xam nga kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci invité bi ñu invité fii euh, di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo toogoon doon ñu doon déglu ci euh, réew mi FM euh, di leen wax ni que Queen mi ngi noonu xama nga projet yi ñu ngi si kanam actuellement comme temps am na ak euh, couvre-feu bi confinement bi ñu ngi bind ay affaire ñu ngi enregistré ay affaires ñu ngi préparé ay affaires dañ ko xaar euh, d'abord xam nga di ñaaxaat waa waa dëkk bi ñu ñu gën a farlu euh, ci li nga xamante ne instant moo tax situation àdduna bi demee ni muy Covid 19 bi. Mhm. coronavirus bi di ñaan suñu borom. mu gaaw jële ko fi di ñaax tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ci ci ci bopp nguur gi xam nga ñu gëstu askan wi gëstu leen quoi parce que instant bi ku ku. ku njëkk a yuuxu dangaa ragal. fépp la méttee xam nga. ñu ñu xoolaat bu baax ci mesure yu ñu jël ak yenn structures yu ñu tëj ak yenn affaire alhamdulilah sax am na euh, tout récemment am na lu ñu xaw a lu ñu xaw a wàññi tuuti quoi baax na ci mais tamit askan lu si des ñoo ko war a mottali suñu bopp. Uh-huh. xam nga ñu gën a respecté euh, li nga xamante ni mooy mooy mooy yi ñu digal pour ñu def ko pour mën a xeex jàngoro mu gaaw fi jóge ñu dellu suñu activité xam nga ibbaat euh, affaires yi conseils di daw xam xaalis bi di daw ñëpp am jàmm quoi ñëpp féex di jaajëf fu ñu doon déglu ñëpp. Mhm. merci beaucoup. d'accord c'est nous qui vous remercions 3 milliards yi génn ministère de la culture. <laughs> compal na leen du jomb <laughs> du ñàkk ngeen jot seen wàll pourquoi pas. Donc, depuis 16 ans, nous étions avec nos invités. Il s'agit de Queen, Dallas, rappeuse. Sama, sama, sama, sama, Nena ce fan number one. Et c'est vrai. Et son manager qui l'avait accompagné, Aziz. y a aussi, euh, Mike, son fiston. <laughs> waaw donc euh, ñu amoon mbégte waxtaan ak ñoom du ñàkk sax ñu defaat ak ñoom émission rawatina Aziz parce que moom tam il est artiste rappeur. amis auditeurs on vous remercie. de l'écoute attentive depuis 16 heures ñu dem ba beneen yoon toog fi ak beneen daanaan ak Itan G je rappelle que nous étions censés être avec lui seulement il est dans autre chose inchallah samedi mu ñëwaat toog ak man waxtaan gi gën a neex on vous de passer un excellent week-end et surtout veillez sur les mesures barrières ciao ciao et très bon week